Euh, Modou Félix foog ñu defaraat ko da nga ne tout de suite la rubrique mode beauté tout de suite la rubrique fun coloré gay glamour mode beauté. <laughs> et defaat non on est, on est pas dans fashion <laughs> non ah. dis euh, bienvenue dans. Fashion. Non, non, non, non, non. Là, tu vas, non, tu vas toi qui sais le faire. Non, moi, je ne peux pas. Non, non, tu vas refaire ça. Tout de suite, la rubrique mode beauté, la rubrique coloré, glamour. Tout de suite, la rubrique mode beauté, la rubrique. Non, non, Billy, avec un peu de pêche. Bon, tu m'apprends. <laughs> Tout de suite, la rubrique mode coloré, la rubrique fashion. C'est ça, C'est comme ça, <laughs> Non, coloré. <laughs> toujours égal à toi-même xam certainement euh, Ndeye Marie di qu'est-ce qui se passe chez celle c'est comme ça elle est normale elle est normale. je suis normale comme ça naka nga def. ma yegg ci jàmm. bu ñu gisee li ne sa bi moom xam nañ automatiquement fan lañ jëm. waaw ah, ci wàllu Miss ak yooyu donc euh, mm-hmm. Ndeye mari moo nekk deuxième dauphinu euh, Miss Sénégal. tey mm-hmm. nag moo am benn thème bu précis bu xam ne loolu lañ nar a waxtaanee. Mm-hmm. que représente la couronne de Miss euh, de Miss Sénégal. la beauté ou l'engagement Khadija tey loolu la ñuy waxtaanee parce que en général bu ñuy wax mise ak concours de beauté nit ñi dañuy foog ni que rafetaay bi la strass yi ak glamour yi ko topp euh, mais nag ku wax miis aussi am na leneen lu mu ëmb ci leneen loolu nag la ñuy waxtaanee yow yow yaay deuxième dauphinu Miss Sénégal. Mm-hmm. lan moo la poussé tey jii nga bokk ci concours boobu noonu. Euh, bi may bokk ci concours bi bon j'ai eu j'ai eu à longtemps vouloir être euh, Miss ou représentatrice de beauté quelque part euh, comme ici au Sénégal ou bien dans ma région ou bien dans mon école j'ai toujours voulu être ça quoi pour peut-être euh, faire passer des messages des Faire, faire, bon, c'est ce que j'ai longtemps voulu faire. Voilà. Euh, on peut dire qu'elle vient de la région de Kaolack. ñoom Samba Ardoba ñoom Ndiawar <laughs> Présane. <laughs> alors kon euh, mën nañ ne compétition bi rêve de jeune fille la woon. comme euh, ni ngay nekkee xale di rêver devenir hôtesse de l'air wala nga nekk enseignante wala mm-hmm. infirmière yow noonu nga doon rêver nekk Miss. Mm, waaw waaw bon c'est une chose boo xamante ni tam ko yàgg bëgg bi may nekk xale d'ailleurs man la mode ci boppam moo ma neex parce que euh, avant ça dama doon wax ni damay nekk styliste wala modéliste wala genre yooyu quoi. <laughs> alors euh, nekk est-ce que mooy euh, mën a dox ci plus de cinq centimètres de talon parce que Miss yi ñoom duñu sol ay rasé. wala mën a sourire vous avez toujours un joli sourire. wala mën foto foto photo yi nice wala am na leneen lu mu ëmb. nekk Miss ce n'est pas seulement ça. parce que sooy nekk Miss aussi il faut que nga am un niveau intellectuel boo xamante ni foo mënti dem ci àdduna li nga mën a représenter soit ta région wala ton pays wala li ngay représenter nga représenter ko dignement ko waaw. waaw avant ñuy ñëwaat di gën a yaatal waxtaanu Miss bi keroog bi ma fi invité Seraka ñoo ngi doon wax waxu street style. nga naan euh, c'est quoi le street style. léegi <laughs> damaa bëgg ñu wane benn élément street style avec des photos et de la musique ma wax la lan mooy street style. alors la question est-ce que ce hmm. sont des mannequins ou bien. Euh, non. Hmm? Non, je pense pas. alors le street style c'est une façon excentrique de s'habiller. C'est une mode avant-gardiste, on parle de mode d'avant-garde, inspirée par la culture contemporaine, c'est-à-dire par les gens qui évoluent dans le, dans le monde urbain, c'est-à-dire c'est la rue. maanaam euh, da ngay dox ci mbedd mi gis benn nit mu solo benn mhm. xeetu solo mhm. nga photo ko euh, wane photo bi nit ki nag li lay inspiré si moom ba nga foto ko mooy li nit ki sol des fois day am benn affaire bi nga xam ne euh, yow ci lukam yëpp mën na la ci neex soit si le sac dàll bi wala look bi totalement te léegi booy seet ci biir magazine de mode wala blog mode yi nga xam ne dafay am si internet bi am na ci lu ëpp benn rubrique bu ñuy wax street style nga xam ne dañ si photo nit ñi en général sax look yi du nduroog ak look yi ñuy gis de tous les jours parce que des fois dafay xaw a sax bizarre boo gisee. look ah yooyu noonu <laughs> mais nit ñi dañ koy sol lii dañ koy sol soit pour dem assister waaw. à des défilés de mode. wala ñu dem liggéeyi. wala ñu dem si yenn rendez-vous yi. sol ko c'est-à-dire que c'est la mode d'aujourd'hui c'est la mode de la mais tu t'imagines habillée en vert parce que j'ai vu une dame tout à l'heure mu pantalon bu vert ak benn mm-hmm. est-ce que loolu couleur yooyu bon peut-être à la télé oui. Ouais, ça, mais ça dépend euh, soleil. Je pense qu'elle n'a pas fait un total look, lit du total look, Là, elle a, cassé le verre avec les chaussures, avec le sac, avec les lunettes. Ici aussi, le verre a été cassé la veste, avec le sac. Là, ce ne sont pas des total looks, c'est-à-dire drôle avec de Noël. On sait que... <laughs> <laughs> <laughs> lii mën na ko sol di dem feneen. je mhm. pense que là aussi c'est c'est oui, c'est joli. joli oui. voilà avec le chapeau on peut prendre la capeline qui est super jolie la veste et tout. et je mhm. pense que Miss bi xanaa yow. ah mais tu es, tu es pour ou contre. bon je suis pour ci benn côté. Mhm. mooy que ni euh, chaque personne dafa war a def li yaramam sentir. peut-être ñoom bi ñuy génn. Euh, couleur yi nii la seen xel dem ñu sol ko parce que aussi loolu la quoi. sooy sol yére il faut que nga sentir ko sentir ci biir quoi soo ko sole tu es l'aise voilà. donc style bi ça dépend rek ci li ngay sentir.